kon kon dañoo ñëwoon ngir ngir jël si ay kàddu ci bisub xasaayit bii nga xam ne mu ngi tàmbali woon fii ci Thiès ci 2001 te lépp doon ci seen njiit ak sa taxawaay liggéey bi di di baax di rafet ba toll fii nu toll tey ci fukkeeli at bi juróom ci 2001 mbooloo mi maj luñ ci am ci ci ci xéewal ak ñu dayo bi mu toll yëpp ñu la koy sante tey nag bokki taalibe yi ñëwoon fi di jël si ay kàddu yoo xam ni mboolem taalibe yëpp yëg nañ soxla nañ ko ci liggéey bi nga xam ni moom la ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa xasaay bi te nga tegoon ñu ci ci yoon ba mu toll fii àdduna bépp di ko roy kenn ku ne di ko too def te mel ni kàddu yi ñu ci waxoon ci njëlbeen ñëpp a ngi koy ñëpp a koy jëriñoo ba tey jii loolu ñu ñëwaat fii rek ngir siyaar si la ak jëli kàddu yi ñu ñu demee ngir yaakaar ko ci yow tax ñu taxaw ngeen ko ci liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa ci loo xamee ne bii mooy liggéey bu muy liggéeyal suñu borom liggéeyal ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal ko képp koo xamee ne bii ku laxasaay rek wuti si wuti suñu borom la liggéey boobu la Sëriñ Tuubaa liggéey liggéey boobu it lu war a mat fukki at ak juróom 家なんか食える元気できやす、うん、また頭がよくわからないんだけどだだらだらけの子だらもの子増えて増えていってかも増えていませんもん ak jàppante di benn loolu lépp kenn mën a fi fii la mën a amee te la leen may loolee mooy Serigne Touba Serigne Touba mi nga xam ne boo ko liggéeyee mu añ mu añal la di ngeen liggéeyal ko liggéey boo xamee ne bii bokk na ci liggéey yi gën a wér donte lee sax nit ñi buñ ko gisee duñ duñ ko buñ ko seetee duñ ko mën a gis ndax bari bari na barab yi yëngatu waaye feeñ bi xam ne moom la barab moom moo war a feeñ dëgg dëgg feeñal ngeen ko mm-hmm. mooy laxasaayu takk seeni der hmm. yor waxukaay yi hmm. yor yére yu gàtt ngeen fas xamal nit ñi ne bés ban jot yonent sunu borom sa yonent bi Sëriñ na bis ba wéet boo demee di ko seet doo fa fekk du sëñ Tuuba du sëñ Tuuba nga fekk kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax. te yëgal nit ñi itam. ñun ñëpp nanu laxasaay bis boobu nga xam ne fukki fukki at ak juróom la ñu wax. te at mu gë mu gën a kawe. ku ne xam na ne loolu sëñ Touba ngi ci biir loolu. Ah, waaye bu ca sëñ Touba nekkul woon. ba tey nekkatu ko tey la gën a nekk ci xal yi tey la ko nit ñi gën a bëgg tey la ko nit ñi gën a tàcc itam ba tax na képp koo xam ne fii ci Thiès ak foo mën di nekk te am te te am ñenn pexe moo moo fa mën a teewee ngir yàlla jëmi Sëriñ Tuuba na ko def mm-hmm. rawatina nag ñun ñi nga xam ne fii la nekk di liggéey ñu hmm. man ak yéen mu ànd liggéey yu sori hmm. liggéey yooyu ngeen li ci liggéey liggéey boo xam ne bi fu bare ngi nga koy tàmbalee hmm. ndax yéen a ko def kon ñu ngi leen di sant ca loolu wéere di di moom mi ngi fi waaye fas naa yéen it taxaw ga ma daa taxaw di donte lii damay sukkatu ba ñëw fay dinaa ko def ci yàlla dindi sëy alhamdulilah ak ñaan ñaan fa itam suñu aajo rawatina mbir mi liggéey bi ñoo xam ne bii liggéey bu kawee moom néew na mu nangu ko te nangu te te te te dugal ci gannaaw laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullaah rek yàlla yàlla na bokk ci la amiin amiin yàlla na bokk ci la sant naa leen lool fas nañ yéene na ngeen daa ñëwee rek dana ma am ñëw ñëwaat suñu borom yi nga xamee ne bii nag moo yor lépp nag li ñu doon séntu lépp mi ngi ngi mi ngi mi ngi mi ngi faju rek. kon noo koy ñaan. bu ak jàmm. ñëpp ñu barab ba daa mel rek mu mel nu ko ëpp. ci ñoo xam ne nii adduna taxu leen a jóg. dara taxu leen a jóg. loolu jaamu yàlla. ci ndigalal Serigne Touba. loolu mooy mooy seen yitte. loolu yitte jooju nag. ñun ñëpp war nañoo jóg donte leen noo leen cee jiitu itam war nañoo jóg laxasaayu ni ñoom ndax ku laxasaayu tey da nga laxasaayu ëllëg wala nga xaw am kersa lii kat moom jëm na jëm kanam te te te te dellu gannaaw alhamdulilah dellu di sant so soobee rek nañ daa def it danañ ko def ndax moom képp koo xam képp koo xam ne kii rek na nga am barke sëñ Tuuba bi fekk la ci ci ci kees te mënul caa ñëw fi na xam ne loolu bu am teq mu rëy war nga faa teew ngir ngir sant sunu borom ci ci ci defin bi يسر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسيري يسر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسيري ولا لعين لسواي مدبرا بما على زر يدوم دبرا مع توجه المكاره ليا باغ هبا بذكري وهو ليا أنا رديت وأني رديت بلا مكاره ولا أمر دي رد لغير جهد شيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لغير جهدي العين يسوق لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت نبي توفيق هاد قاد الإلهام قد أبدي لي ما لون بدت لي اليوم برب الغيب أعاسني ممن خلا وخيبو لا يتوجه لنبي مدب أني مهد مكاري وتعب سعادتي بغير من كتبت وكوني عبد الخديم قد سبت شكر لي ميسر عسيري مختار علي بلا مسيري يسر الأكرم تيسيرا يفوق قلي وإبلا وجار يا رفيق سبحان ربي الكريم الأكرم من قادني إليه بتكرمي صوت الأول أمد مع سكري ولم يزل برافع سكور رفعني رافع بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لو سكري بلا كفران وسانني بالحل والجيران يسون عن كل هذا جهاتي مغن يدي بها كذا عن حياتي إذا تلوت آية فرلعين لغير ذاتي ويزود والمهين لم ينخني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أي مني اللعين والقلا ربي بمن كتابتي تنمي علا كتابتي فاقت سيوق تربية وكل خير وسيوق ترقية ردت كتابتي بسن الله لغير نحوي كل جان الله مد لي الأكرم تيسيرا يفوق خلي وهب الله جاري رفيق